laa xamee ko bien sûr. wala kii la tëgg journal. jàmbar la. wala ni mu ñaxte ñaxte wi rogaat. te c'est un grand footballeur ah. yii. li ma gën a yéem ci moom mooy ay paasam day paas lu la de. nga ni. tubaab bi doo paas ñu longi. loolu sa xalaat la eh, loolu sa xalaat la non pas sa xalaat man xam nga ñun nan nangu quoi nan nangu. waaw ci naka nan nangu. ci naka ci sukkand bi ay suñuy doom yooyu dem di toj réew ma mais tubaab yi ne moom ba mais bu ko moomee tax na ñu kenn cër ñu ne li moom. waaw bu xoolal sax ma li may ba waaw li may bañ ñu bëgg a jël moom ko ñun. xam nga nga baal ma daal mais yaa ngi bëgg a dugal kañaan. ah mais kañaanu la. ah oui kii daa mën a football. waaw mais néew ma la moom te football mais dama mais mais fii. Ronaldo ñoom Messi. ah parce que xam ne convoqué naa ko booy bi. kenn booy bi. jëlee ko attention de maa départ sama oto ba buntu maa ko fekk mu jib ko autoroute bi. waaw. sifflé laa ko dóor muy jéem a la ma daw kar ko. dama doon toj borom. tiib wàcce ko tamit ne ko tekk teg suuf. occasion ko fekk ba commissariat ba ci nos te fourtu dans les guides. kii day ñëw tey ci laa booy. may ma tuuti. eh booy. booy. waaw allez bu mu si jugee. mette voilà. waaw waaleykum salaam. kii kii kan la. ça va. ça va très bien. waaye yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw kàlla. kii kan la ah. yow naa la ko ak naa ko. bien. booy yow xam nga fi nga ñëw nii. waaw fii de dafa mel ni commissaire la. très bien. oui. lii c'est inspecteur doyen. Ah. moi c'est l'inspecteur per dégg nga yow yow lan moo tax yow lan moo tax nga yab ñu nous les sénégalais quoi lan moo tax yow nga yab ñu. non man yow moom sénégalais respecté naa leen de. non mais yow mais tu sais bien que ni yow nous on a besoin de toi am de toi. E, e, effectivement on a besoin de toi sur le terrain. t'as des trous t'as des trous à. à Massalé. laa boo ji ngir yàlla mais nag attention les sénégalais ñoom ñoo jël ñoo def pétition. Hmm. ñoo def pétition yi ñu déposé ko fii. mais hmm. daf dañoo tooñ ndax li muy def moom moomatu ko nu sénégalais yi ñun ko moom lu tax bàyyi ko. Hmm. pour quelle raison lu tax ne bañ a ñëw ci équipe bi lan. keneen maa ngi jégalu sénégalais maa ngi donc amatul bés ni ki tey amatul problème donc dinañ dinañ trouver solution dinañ waxtaan ak coach bi. léegi tu es prêt à. waaw je suis prêt pour le pays. pour le pays waaw pour le mhm. dina non gisee guñu mais dinañ gisante. incha allah te mais coach bu mu fontowaayu. ah effectivement parce que da koo war a moom convoqué wul. non dana la convoqué mbaa ma convoqué ci brigade. mais mais mais bien sûr. Ah, nous pour là on est on pour ça. oui on pour ça. Hmm. on travaille pour le pays. yow da jariñ dara. Mm. Eh, mais mu dee dee ñun lan moo mën a wóor ni tànkam bii suñu quarante bii nekku ci. waaw te poli wala la. te xool xool xool bi xool pour wala ne dañ lay topp. Arrête déjà. Mais c'est ça. Donnez coup de Macky bi du Sénégal bu def. convocation pour l'entraîneur de l'entraîneur de l'équipe nationale. Aliou Cissé Aliou Cissé bind ko. Aliou Cissé Aliou Cissé. Aliou bi koy bindee. A L O e ah, S. yow yow Aliou ko fi bind Aliou la jox. maa ngi lay moo ne maa ngi lay laaj. waaw bi doon bind. voilà. waaw mu ngeen ko. voilà te teg mais dañ koo soxla. effectivement et puis. Euh, Papy Djilago ji fan la juddoo. waaw man maa ngi juddoo maa ngi juddoo Dakar maa ngi juddoo Wakaam Wakaam laa juddoo parce que sama papa armée de l'air la nekkoon donc Wakaam laa juddoo après ma yoroo Kaolack. fan nga njëkk a footballé. waaw mun naa wax ni Kaolack laa njëkk a nag. Kaolack Marine Bongré équipe bi la nekkoon Marine. Euh, sa carrière internationale ci ban équipe nga démarré. Euh, ba may soog a dem France nag benn équipe bu ndaw laa commencé quatrième division. Mm-hmm. ñu tudd Sénart Moissy. voilà mm-hmm. nekkoon après dafa góorgóorlu def euh, six mois. Mm-hmm. après Nantes jënd ma signé ma contrat quatre ans et demi. Euh, si seen ma trompe pas demoon nga fi Chelsea. waaw waaw demoon naa fi Chelsea. waaw euh, sa dem Chelsea boobu. quelles sont les conséquences. waaw xam nga mm, yi ñooy ñooy ñooy bëgg ñooy décider ci club anglais yi. donc ba mu desee ay quatre jours yooyu ci la ma sama agent bi woo ñu ngi tudd Mouhamed ak Bouna Bouna Ndiaye ak Mouhamed Gueye donc ñu ngi ne ma Chelsea dala soxla léegi amoon na beneen agent belge bu nekkoon ci biir donc deal bi ñoo ko def à trois donc ku si ne gis si boppam man tamit ma gis sama bopp. et puis ça s'est fait comme ça. Hmm. ok ok euh, li laajaat mooy euh, ndax yaa ngi xaaraat bis ñëw sa réew mi di Sénégal. nga ñëwaat sa rak may l'équipe nationale. waaw moo nekkee xale ba léegi moom laa doon rêvé jouer équipe nationale. Mm-hmm. donc euh, yàgg na ñëwuma mais bu ma ñibbee dinaa gën a liggéey. Mm-hmm. def lépp lu si war après ñëwaat ñaan yàlla ñëwaat équipe nationale. Euh, bi ngay def lan moo ci sa rêve lan mooy rêve bi nga xam ni moom ngay euh, moom ngay moom ngay gën a gën a xalaat pour sa avenir. Mm, donc maa ñaan yàlla mu may ñu Sénégal soxla nañ ko donc day gën a soxal suñu football. yàlla may ñu gañe kaan bi mm-hmm. ñu ngi waajal coupe du monde bi ñaanal Sénégal yëpp ñaanal ñu comme sa buñ ci defee buñ ci demee ñu ñu qualifié si déjà mm-hmm. buñ demee góor góorlu bu baax baax comme sa mm-hmm. wan yoon ni suñu rakk yeeg affaire yooyu. il y a là na ñëw. na rafet rek. Mm. Mm. na rafet. booy bi rafetal na moo bi na rafetal rek. Sénégal am lu nu bëgg mu jeex mu rek na rafet <laughs> na rafet na nga booy bi da nga dem ah. <laughs> da nga ñëwaat da nga ñëwaat par aw par dér da nga dellu si. <laughs> jaajëf jaajëf jaajëf lii doo nga taxoon nu woo la Dakar dégg nga lii doo nga taxoon nu góorgóorlu sénégalais yi xam yow it nga xam nit ñi mën a leerlu ñu xam ne Pape yi mi fi pare na pour solaat mayo bi dëgg la dëgg la inshallah na waar merci beaucoup merci Pape jaajëf jaajëf jaajëf boo gisee Messi nga nuyul ma ko waaw Messi waaw nuyul ma si bu baax a baax. dëgg fi daan entraîné ci gannaaw. waaw sama papa dafa waroon tool. dafa waroon toog ni di ko gis. waaw dëgg la waaw na